barhamu baun waraun alifun thumma ha mi mun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu mbooloo mi di leen dokkeel képp kenn ci ñun ñu ngi koy nëru ci jëmmam ak jëmmam littihaadil ismi wal musamma ñoo ngi ndokkel àddina bi yëpp ci bis bi nga xam tey mooy sangu mboolem bis yëpp ñoo ngi ndokkel mboolem africain yi ci jëmm ji nga xam ne ba ñëpp a gëlëmee moo leen gindi ñoo ngi ndokkal tamit waa Sénégal ci jëmb ji nga xam ne moom mooy seexal islam alaaj Ibrahim a ñesi ak Kawlax bi oté feydu bi mom Cheikh Ibrahim ci oté bu set bu sel bu leer bu am maqama bu am lijaba bu am maarifa bu am tamkin bu am marfa tabaraka taala bi baye oté xangam bi jamono di dox bam yag jamono bu ñoo nax bëgg ñoo nax moy ko toll Cheikh Ibrahim. jamono boo ko fee dàq jëlee ko fii loolu naxel la waaye bàyyi kër mënu ko ndax moo tax nga a bàyyi naa man bàyyi damay dikkaat dafa def question moom Cheikh Ibrahim da waxal ba daa saa kullihi safaar jow ndax man bàyyi dara ñëwaat lii ma liggéey ci àddina wi yaat est-ce man bàyyi dara ñëwaat naxam naxam waaye su ñëwaatee ci ban mosa lay feñaatee ndax mi xamal la ñëwaat diine ñu ne ko bàyyi nu ñëwaatee booy ñëw mooy su may ñëw man Cheikh dama yoon ñett nga war ñu ne ko bana bala mën a wëttii tey batun te wëttii tey batun asaka badrun wa xandakun wasaa uhudun kooku nag tun sa ka badwaan wa hadra fa barhamu yaati kon baram dikk na saa iran mutawasilan mustasfihan arjoka fil xabri hadra kii ma Cheikh radiyallahu yàlla subhaanahu wa taala posé question adduna bi yëpp question boo xam ne amul kenn ku ko tontu ko Cheikh Islam yonente lot nañ pour tontu loolu yonente yii min aadama ila insa gëlëm nañ ci yàlla question yonente am sallallahu alayhi wasallam wala yàlla yi gëlëm nañ min aadama ila Cheikh Tidiane yi ñëpp amul kenn ku mën tontu laaj bi waaye bàyyi fël feeñ ne yàlla laajal ma tontu yàlla laajal ma tontu يالا سبحانه وتعالى لاج لاج بو خامني لاج بو سيفير لا من علم ترى قنا غيسو كون دا نوري غيس يالا كو تولني موم ديو اي جامنا علم ترى قنا غيسو الى ربك كيف مدسلا نغبر سبحانه وتعالى كرام غي يالا كلوي كرام يالا لوي كرام موي سيدنا محمد باينا بره تونت لاج بي نكو رايتو من غيسنا waaye waqad madal muhayminu zilluhu yusali alal habdi ala jëhri wa najwa waaye léegi man li may questionné kay mooy Baye fu mu toogoon. xam nga Baye daf na raaytu man Baye gis na. waqat ma dal muhayminu zilluhu yàlla ma nga tale kër ga moom fu mu toogoon moom. yàlla rek moo fi nekk di tale këram te bàyyi na ma gis naa ko. ñu ne ko bàyyi nu ko talee mu ne man bàyyi gis naa yun sallallahu alayhi wasallam ni ko yàlla di talalee ci àdduna bi ñu ne ko bàyyi mu sali alal habdi mu nekk jaamu sif habdu sifa xaaral jëhri ala jëhri égal mu nekk habdu ismi wan nañ waa muy abdu zati xool nag sifa bi yontu bi nga xam ne nag mooy sang bi ñëppee xaar rasulu attana wa huwa sirrun waasulu min a xayatal kon koo leen a xaar fii kooku nag ak niro ak niro ak niro ak fiñ fi tey ak niro ak ta gaay daga man di yëpp tey xel yëpp daj Boubacar ki fiñ fii di Cheikh Ibnu Xayri jameel bu tedd jameel bu di xam-xam jameel bu sedd jàll bu tàng jër nag sedd bu da guy tàng jër jaam la boo xam ne bi jaam yëpp gëlëmee réer Cheikh Ibrahim ah. moom Cheikh moo addu di yee taalibi dala maa bal dam hika maw hinan yatadafaqu wal jisum yeen halu wal fuaadu yu masaku xalqan qalbak bi rabay mu alqan te su waxal yetta xam nga loolu lépp la maa baalu dam hika lan moo ci sa ronkañ yi ronkañ ndax ronkañ yi mooy ronkañ zahir yi déedéet déedéet nañ déglu waxee ci xaqiqa ah. parce que bàyyi xaq lañ ko sunna ki ko moom mooy Seydina Muhammad tariqa ki ko moom mooy waaye bàyyi moom a ah. kon kuy wéy cee bàyyi la nga war a wax mooy xaqiqa ah. xaqiqa nag bu ma dafa ñëwul du leer haqiqa ah. ah, Soumaré fa ñëwut du leer tariqa Soumaré fa ñëwut du leer chara Soumaré fa ñëwut du leer moo tax ba ne almazahiru salasatu wala mutasahir rek kii jóge ci gaayu kooku ci feeñee lépp leer te ko kenn doo leen naat moo tax Cheikh Ibn Khayri feeñ fii daal ne maa baalu dam hiika ana lan moo ci sa ronkañ yi ronkañ yi mooy lan moo fi ci diggu guddi guddi go xam nga may lan moy zatu aliyati guddi égal zatul allah sifatan wala isman wala khilafatan wala ayna wala kayfiya maqama shaqi wal mahqi wad dakki wa fanayl fana falaysa fi hansa ilmatil haqqi lil haqqi bil haqqi fil haqqi fal yaqila la la sayqiru loolu mooy guddi gi seex di lamb di la daan loolu day na war kon guddi gi seex mu ngi laaj guddi gi maw xii nan nga tëdd dafoku xam nga roqee mooy lan mooy ruuy sa teku moo tax bana tallaqaahu nii ruuya la seex di woy ruuya ngay sotteeku wal jismu ca yaram lay wàcc. wal jismu yan xaalu yaram ba ngay jeex. wa ru ak yam dajee na xol taxaw wal faadu xol ba ngay xotteeku nag nafsu bi di génn. kon ñu ngi santaal lu baax. di gërëm yàlla subhanahu wa taala ci ay mayam. di ko ndokkeel dina koy bis bi ak borom bis bi. gis nga kii feeñ fii. di Cheikh Ibn Khayri jaam yàlla. waaye jaam boo xam ne dafa la laqoo jaam. nekk sang nekk jàmm xubbuutu la maqrootu bi siyaadati te loolu mooy am moo tax misri di xool bàyyi na ko raaytuka yawmal jamhi abdan wa sayidan te yow waqat ku قبل القبلي في هذا القرسي كما كنا قبل القلق لله ساجد وقل ويدا حرشي والله والكرسي فإنك أنك يا باي سمس الحق شرقا ومغربا فإن في بحر السمس كون يزن دال بار دي غرم ياب دلان دوكيل ديوان وار دغا كي تحدني ياب تاي دغ اي ماندين ay manding ñëw fii ci xalu ket nag mbii xam nga loolu xam nga loolu du bakkan xam nga loolu xam-xam rek la wu doon borom bakkan gaa yi toog dakal nelaw borom yàpp lekk yàpp gasal ñu toog dakal lekk yàpp borom la boo nooyee la am nañ ko Dakar booy ndox bu seet la am nañ ko Dakar bàyyi ko fa booy mbooloo am nañ ko Dakar bàyyi ko fa ko li tax ñu ma dagay ma ñëw fii lan la بين وقت مفتي وقد هرت بين تحت قدائي فما قدتهم في شرقي والقربي فد فدن فنجم لطاق بين من بوركوا با وعيني يوم عيني ويسر سره في هيكلي وقل سمان كلهم سوى أزر هواي كون ينزل الباخ جميع شئت تقدائي فما قطعوا في السرق والقرب فدفدا إلى مكة إلى لسم زسائي والإملاء وعين اليوم عين محمد سرى سره في هيكلي وروائي وأهل زماني كلهم فاز راقيا سوى من غلا ناجي أسير jërëjëf Baye Niass mooy wëy nee na waxatama mat na man Baye Fatihi wala seen Fatou ah Fatihi man Baye sama Fatou mat na inda ca bersu ba luy bersu baay Zahir bersu loolu ñun dañ cey tuuti pour ko tudd. suñ maam alaji Abdoulaye Niass sang bu tey xool kooku moo mën ci àddina bi maam alaji Abdoulaye parce que moo jur ki mën ci àddina bi dëgg la yaa jànqa ah. moom mooy may sangu jigéen ñëpp parce que boo jël sang mooy buy njëkk ak buy mujj mooy Cheikh Ibrahim moo tax bàyyi ba bëggee bak dama la altaqi zullatan wa ora fawqal kibaari bila kaddin wala bàyyi ñës moom ne mooy man bàyyi sans faute man ca bet soba ca bet soba ca bet soba inna ma fofu nag waqar xam jàmm góor xëy bi yeb man ba ñu sama atte góor xëy bi nak sa sëriñ bokku ci sama sëriñ lay waxat sama sëriñ may wax ak sama sëriñ te man ku sama sëriñ amo asal amo abat ko wax ñoo yow ta benn so bay ku muy firi fa nga xam asal ak abat moo tax bàyyi moo teg ca asal ta asal may zaatu qabta tajali maa def tajali génnee benn masar. Ah, ci masar yi war a bind bàyyi. kii war a bind bàyyi bàyyi koy bind. bàyyi koy bind. benn masar génn ñu koy def asalu asal. Ah, ba de beneen tëjali ci asal asalu asal. Ah, kii may bàyyi yaay. asal asal asal. daw ba ca abadu abadi abad. mu des. tënk na ko <laughs> daw ba ca xat miitu. allah bàyyi taxaw ci ihaat na waqat ma fati. kon bu nekkee bekkaat la xanaa leer na léegi. benn góor moo nekk Makka. ñaata ñëpp ay jigéen lañ. benn góor kese kese kese moo nekk Makka. la des yëpp ay soxnaam lañ. benn góor moo feeñ fas ña des ay soxnaam lañ. góor yàlla ñaari góor yëpp ñoo am. kullu faalin min tihaani kullu sirin maddahu siru tijaani yéen seen woy bi dafa tooy bu tooy de sayqi bil maani astabin door al qawani wa tawaqa wal taraa wa tamal khairu wanin ba'da la in qul taraa qad afa al malawani qad ghada dur al qawani hajaban sarfu samani nasajat hamin junubin wa simalin kull alin fayaqal qad sawadan wala qad أحد المباني ساداتي فيكم ودادي واتجاء واتمادي بامتداء واتجار واستياق باستداد لم أقف سر وسود لا ولا كيد الأعادي قد من همة شيقي بعد تقديم الوداد لا أقصى جور أسماء نوالا سام الموادي فهو ترس للمريد مركل بلبان الجوامي ساقي بين الماني حسب دور القواني وتوقف الترى raa mata amal ah, xayru waani ñu ngi santal baax di nuyu ñëpp di kontaan trop ci ci ki ñuy feeñu fii ci télé ci rajo bi tedd bi alfayda tijaaniya alfayda tijaaniya en fait yaa mooy lan ah. mooy bëbëg Cheikh Tidiane gi alfayda tijaaniya mooy bëbëg Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane xam may kan. Hmm. xaalam bii. Hmm. dara niful Cheikh Tidiane. ku fi gis keneen ku Cheikh Tidiane safar nga jëm. loolu ku doon ko. te ku ñu dox ñu dox. te borom faydu bee ko wax. ah Bayo. boo wax loolu Baye Jabar Daw nee na. xaalam bi ku fi gis ku keneen ku di Cheikh Tidiane safara nga jëm. maa Baye se Baye moo ko wax. boobu sax tuut na ci ma. xam nga balaa soxla. xabba allahu unasan qad raw xeyraka maa taraa. xeer ma boobu. xalliha daara ma boobu. li leerul. xaalam bi ku fi gën ko Cheikh Tall ma ne safara nga jëm asamaan si suuf si jaww ji Cheikh Tall moo ko moom asamaan si buy ruuxu Cheikh Tidiane ah dana bidoo ak jant ana moo la Cheikh Tall mooy lan dama koy dama koy côté. suuf ma yaraamoo Cheikh Tidiane. man de ku ñu fi suul te nekkoo Tidiane. la mbaaw. suuf si ku ñu fi suul te nekkoo Tidiane. xam nga lay kuntu. yàlla tam nekk taal bi Cheikh Tidiane. ñaan te ne kuntu turaban. yéen ko yóbbu na xamati loo xam loo muy boo yàlla te kuntu leen tam ma nekk Cheikh Tidiane. kuy kuy suuf ko doxee. ah Cheikh Tara Law dafa am ku ñëw ci moom saxabaam. ku ñuy wax Mahmoud Xaali. saxaba ba ngan ne. ñu ne ko Cheikh ma ne ko laa bëgg tey du ma sax benn yaay kat. yaay yow noo melewul yàlla yi. ma amma ana kal ardi. wala awliya kal ashjar kon kuy suuf maanaam tarixa fi mu jaar ma jaww ji kal la xutul fi mu jaar wa ina xuutulil anaami falees ko ma raani kon kii ma Cheikh Ibrahim ñu ngi nekk ñëpp di kontaan trop di sant yàlla baax dëgg dëgg tàng naa xam naa nit ñi bëgg na yàlla bëgg na yontaal Mahamad bëgg Cheikh Tidiane bëgg Cheikh Ibrahim bëgg Cheikh xëy lii ma dag at yëpp tey dëgg amee ñu fii tey ñu ngi nekkal ñëpp dèjà incha allah rabbi daggam nga tey dar mën ko tex neex parce que lépp lu mën na ma neex su baaxee day baax na na day fay xeeñ ndokkal ñëpp di leen saare di ndokkal faydu tijaniya di leen bu baax ci ñoom rafet na lool ñun sax waxoon na ne kaay leen ci man jotul benn aaya ci man ah, balli ko anni walaw aaya ah. kon faydu tijani bi dafa ñëw pour balla bal maanaam balal ay aaya ay li ma wax yëpp ay aaya la ay ay yu bëri laa fuy tey ah. te man ñëw dafa ko tey dafa ñëw te pour balla te bu jógee fii dana ko bal ci ay ruu yu bëri ruu yu texee yëpp dañ ko déglu te ku ko déglu billaay boo ko déggee te ku bëgg boo ko digloo te bëgg a bàyyi taxe woon yuy bu nii kon ko bëgg taxe bàyyi ko waxuma ko maa ngi di leen siyaar sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah baraka barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun faydu tijaan jox ñu